ci jamono bi nga xam ni yenn ci réew yi nekk ci dëndu Afrique ñoo ngi indi ay coppite ci lu ñeel wàllum kaaraange programme bi ñeel dooleel wàllum état de droit ñoo rek tabb ab téere di ci rek tënk xeex bi ñee la jigéen ya ñuy sàkku ak xokkatal ci yenn réew yu dëkk ci ay jàmmarloo. et nous avons vraiment voulu partager man ak sama équipe dañoo bëggoon rek partager sunu expérience ci lépp luy jëm ci wàllub mététal bi ñuy teg jigéen ñi rawatina li ñuy dippee violence sexuelle. maanaam sàkku jigéen attekat yi sax di magistrat yi mën nañu sukkandiku ci document bi ngir traité yi la dossier. qui permettra à des des magistrats jigéen ñi ak toppatoo bi gën ci seen ay droit loolu nag la ñu doon jàngat ci bile panel ci yenn xoqatal ak sàkku yi ñuy def jigéen ñi ba tax na mbootaay bi ëmb juriste yu nekk ci réew mi taxaw rek tem ngir jëlee fii lu ni mel. xam nga déjà buñ la defee dara tooñ la gaañ la wala dóor la wala premier accompagnement mooy fexe ba yoon yëg bu ko yoon yëgee yoon def ci li mu ci war a def li nga li ma wax léegi nag lii tax ñenn dañu ragal dañu ragal boole wala dañu ragal dem mooy ñàkk moyen wala ñàkk am euh, mën-mën kooku ñun liñ ci mën mooy boole parce que am na ay partenariat yoo xam ne war nañ ci mën a taxaw te ñoo ñu ngi ciy taxaw boole leen ak ñooñu ñu taxawu leen sur la plan économique social gën a leen may euh, xel ak xalaat xamal leen nag lu ñu war a daan la waruñu ci ragal dara bu ku mu dal da nga ko war a bañ te bokk bañ da nga ko war a won yoon kon bis bu ñuy ubbi bile panel ñi seen xel màcc ci wàll wi doon rek dugal seeni loxo bile combat bu ñeel kaaraange jigéen yi ñu nar ci lëkkaloo ak Konrad Adenauer mbootaay bi ëmb juriste yu nekk ci réew mi ñoo boole rekk seeni yoxo jigéen yooye ñuy sàkku ak xokatal comme nañ ko tënkee ci convention ak accords internationaux yu ñu xaatimoon ci bile domaine.